salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien démb am na ay yëngu-yëngu kon yu am ci administration sénégalaise ci conseil des ministres bi ñu def président Bassirou Diomaye Diakhar Faye du xool na yenn euh, gouverneur yenn préfet sous préfet yi andi na ay jàllaañoo daal ci wàllu administration sénégalaise ba noppi toftal ci def ñetti nomination yoo xam ne seeni borom siiw nañ lool Mortala Gueye nit dof moom lañ def PCA fond des cultures urbaines Landing besan Seck kilifa moom lañ def euh, PCA bu Grand Théâtre du Ndiaye Coumba Rose Mody Niang moom lañ def PCA bu surnal la Soleil toftal ci yeneen yéenekaay euh, yii xëy de APIX ak euh, kër googa di se lëkkaloo nañ seeni doole ngir mën a jagal aménagement du territoire ci wàllu politique Amadou Ba mu ngi wër di wër këri diine yi ba léegi mu nga woon kon ca ba Jéggi Jóob dal ne fi mu nekk nii moom dañ koo singili tongal ko rek ndax nguur gi fi nekk ay wëyu lañ te li ñu bëgg fi ñu bëgg a jëme Sénégal mooy ci réewum dictature di sañ a def ak a dindi moom Jéggi Jóob noonu la jàppee mbir yi waaw euh, médecins yi ñoo gëstu dal ne Sénégal jigéen ñi am 15 ans jëm kaw lu vingt tolloog mil mille 800 nangam nangam danoo sida góor ñi 15 mille ñoo sida attention Sosét les gars Sosét waaw musiba naaru laay euh, genn gaal moo euh, toje république dominicaine quatorze morts lañ fa fekk ñaari sénégalais nga ci woon ca biir euh, waaw Woodside moom war naa jox xaalis bu bari sunu douane bi Sénégal ñeen doog jàmm